ministres euh, et des DG qui désertent leur bureau pour battre campagne. Avec la rupture tamponnée euh, à PASTEF, comment comptez-vous gérer l'agenda gouvernemental On sait que Fadilou Kaita, DG, CDC, est nommé directeur campagne au niveau de PASTEF, tout comme le ministre de l'assainissement, euh, Cherti qui va gérer la communication. D'abord, le poste de directeur de campagne, de coalition, c'est quelqu'un déjà qui ne bouge pas. donc pour ñu bañ rek stigmatiser jël nit boy ko au gémoni parce que cité nañ turam ci loo xamante ne lu ñu ŋàññi la te nekk di ko di ci tontu ci diggante laaj ak tontu bu dox sama diggante li ci tegu nag mooy gouvernement bi fu mu nekk nii def nañu sept mois am na ci ñuy sonn nag parce que fu ñu jóge moo tax te pourtant dañu leen wax ne bu leen dem noppalu ji kon li ñuy xaar ci ñoom man la seule chose qui m'intéresse mooy est-ce que tout célérité bi ñu ci war a def yëpp mu ngi ci am na ñoo xamante ne seen responsabilité mooy ñu délivrer à temps tout dépend de comment ils s'organisent est-ce que dañoo def ay heures supplémentaires est-ce que dañoo dem fanaan ay ay ay guddi guddi pour mën a am yoo xamante ne avancé nañ ci seen liggéey c'est des choses qui arrivent man mii di wax ak yow il arrive que ma ñëw sax dimanche liggéey lu bari pour lundi ma mën a dégager plage yoo xamante ne dama ciy recevoir ay nit kon organisation travail bi man duma ci impliqué wu à mon niveau li may xool mooy kan moo war a joxe dossier ci ban ab est-ce que dossier boobu wàcc na te xam naa ne premier ministre mi nga xamante ne moom lañ def tête de liste nekk premier ministre nekk campagne électorale terewul mu liggéey seete ko ci man du damay voyage moo may tere signé ay décret du moo may tere coordonné du moo may tere def ay ay ay actes yi nga xamante ne war naa ko poser parce que nu ñu organiser liggéey bi nit mën na liggéey à distance mën na coordonner à distance mën na dem ñëwaat mën na guddee mën na teel a xëy mën na naaja dem c'est une question nag de trois semaines démocratie nag dafa am prix dafa am prix fu ñu nekk nii ak ni élection ni ni ni dund gi tar tar tar biir Sénégal dañuy obligé jël xaalis dugal ko ci élection parce que vitalité démocratique bi la ñuy ut ak célérité ci ñu bëgg a def démocratie boobu nag mooy tax si nous ñu appal ko ci semaine nit tamit battre campagne parce que am le droit à un congé électoral et c'est prévu par la loi man may fonctionnaire j'étais chef de bureau ñu investir en 2017 ma jël congé électoral dem battre ji campagne Le congé électoral c'était consécutivement à un congé administratif normal kon nii nit ñi Man, je suis convaincu de l'engagement de tous les membres du gouvernement et de l'administration et du sens des responsabilités ci li nga xamante ne warloo nañu ko ak askan wi ci li ñu ñoom ak ci li leen charte réew mi kon sous ce rapport là je leur fais pleinement confiance et entièrement confiance. Merci beaucoup. Merci, Excellent. Je pense que nous allons clore cette session et permettre au président de la République de se retirer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée.